daanaka benn weer moo des ngir ñu yegg ci tabaski bi ci jamono ji nga nag ñu ngi nemmeeku ay yëngu-yëngu ci mim réew rawatina fii ci Ziguinchor loolee nag jur ab tiitaange ci ñi nga nag ñu ngi yëngu ci jaayum xar ca daral bu Ziguinchor. wax dëgg yàlla affaire manifestation yi moom ñu ngi am na yeneen yu bëri ñu ngi koy ragal boobu parce que am na yeneen lu war a jógee si biir Fouta parce que biir Mauritanie ak Mali kon si déggee affaire manifestation bi dañu xaw a ragal tuuti parce que fu nekk suñu suñu sañoon ñu arrêté ko. ñu arrêté ko ñu ñu yemal ko fii ku nekk bu na liggéey affaire tabaski bi parce que fu mu nekk ni affaire bi excès na te am na yu bari bëgg nañ ñëw kon ñu ngi ragal. buñ sañoon moom jàmm am buñ sañoon moom jàmm am waaw ku nekk euh, mu am lu mu bëgg waaw buñ sañoon moom jàmm mu am mais heure bi nii moom ku nekk mu ngi am tiitaange waaw parce que kenn xamul waaw kenn xamul. depuis 1992 nag kii di Al Hamza Diop moom ma ngay yëngu ci loole jàpp ni ak nu mu mënti demee xar dina am te askan wi daan ci mën a jot. ñun kay affaire xaalis moom mooy problème bi am affaire xar moom fii bu Mali fii bu dina ñëw incha allah ku mën a ñëw xanaa dépassé oto kay. oto kay balaa nga jël ko Mali ñëw fii da ngay fay un million de sarsaro moor ko moom boo jël direct Ziguinchor da ngay fay un million bokk laa nga dépassé tuuti tuuti ci yoon bi mooy gendarme yi police yi koo taxaw da ngay da samp moom. da sampa samp sa te 1000 francs gendarme 1000 francs police 1000 francs loolu rek mooy problème yoon bi aga dund bu jafe bi. yokkute gi ñu nemmeeku ci aliments yi doon na li nga xamante nag jur na ay jafe-jafe ci sàmmkat yi ni mel te lu ñuy sàkku tey nag mooy ñu wàññi njëgu yooyu le aliment. ngeer yi saak ngooñ 7000 francs ripaas yëpp amul dara jur yi amul lu muy lekk dara dara dara dara soo moytu su ñu amul lu ñuy lekk ñu am dara lu ñuy xam ne dañ koy jaay ci tabasil dara amul. yëpp yëpp dafa seer war war nga wàññi aliment bi su dul loolu du mën a liggéey dara dara dara gis leen suñu xar yi yëpp dafa xiif léegi yëpp périssé xar yi dañu xiif amul dara lu ñuy lekk. di fàttali ni ci tabaski 2023 fii ci Ziguinchor nag lu toll ci mille xar la ñuy xaarandi ngir région bu Ziguinchor.